يقول حمد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi siyaare tey sant seex Ahmadul Khadim ci lu wér tey ñaanal ki nga xamante ni moo fi nekkal Cheikh Ahmadul Khadim muy Cheikh Sidil Muxtaar noo ngi ñaan naal yi mu naalal sëriñ Bamba yàlla na ko defe ni mu ko bëggee te ànd koog seexi Serigne Touba yëpp te ànd koog muriti Serigne Touba yëpp noo ngi jàllale ay kàddu yu gàtt te di ko jëlee ci sëriñ am Amsatu mbakke moom Serigne Chouaïbou yàlla na ko sunu borom dolli tawféex ba lépp li mu bëgg liggéeyal maamam ji mu defe ko ni mu ko bëggee te ànd koog murit yëpp barkeb xaside yi di leen yëgal bis bi nga xamante ni ni moom la Touba France gépp daal di àndandoo di def muy màggal gi nga xamante ni moom la ñuy màggal fii xaside Serigne Touba te mu dëppook le 6 février 2000 2016 euh, fii ci Touba Aulnay koy defee incha allahu rabbi bis bi nag noo ngi ci woo képp ku bëgg yàlla ak képp ku bëgg sëriñ bi ak bépp ëxlu xasida doo xamante ne ni xasida yi dara doon na dara ci yow wala nga dara doon dara ci xasida yi noo ngi ñaan ci barkeb Seex Ahmadul Xadim bis boobu nu àndandoo defe ko ne ni nu ko bëggee ni ko sëriñ bi bëggee ni mu nu ko joxe woon daan nenu na nekk lépp loo xamante ni sëriñ bi xenc na ko ñu tàmbalee ci moom te yam ci moom mooy bis bi nga xamante ni dañuy toog rek jublu penk ñëpp di durus ba fajar daal koy jox sëriñ bi addiya noo ngi ñaan yàlla na ko nangul ci barke xaside yi noo ngi ciy ànd nag waa waa waa waa Touba France gépp muy euh, penk sow bët gànnaar ak bët saalum di ko ànd waa bitim réew gépp muy waa Touba itali waa Touba Norvège waa Touba Allemagne waa Touba Bruxelles ak képp koo xamante ni nii rek dégg nga annonce bi ñoo ngi la ciy woo ci bis boobu ngir jëmmi Serigne Touba te ñu ànd ko ak muritu dëkk bi yëpp ak kilifa yi nga xamante ni ñooy sunuy Serigne tubaa fii ci dëkk bi ñoo ngi leen ko yëgal te di leen ko yeesalaatal ci barke Serigne Touba noo ngi ñaan ci barke xasida Serigne Touba yi bis boobu nu dëgmal yàlla nañ ci dëppoo ngërëmal Serigne bi te lépp lu ñu ci jàng araf bu ne Serigne tubaa ful ko faj ci aajo julit yëpp julit yëpp am jàmm ci barke xasida yi murit am jàmm ci barke xasida salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu barke borom Touba noo ngi siyaare mbokki taalibe yëpp ñu fi ñu jóge ci yeneen dëkk yi ñoo fi ak ñu ñu fi fekk noo ngi leen di siyaaru bu baax a baax a baax bës boobu nag sëñ am satu moom sëñ soñ bi dañu cee jox ndigal ba noppi wax nu nun koy defee ngir dëppoo ci ak ngërëmal Cheikh Ahmadul Xadim mi nga xam te ne ñun ñëpp moom la ñuy sàkku bés boobu nag jëf bépp jëf buñ fay jëf day dëppook mu doon jëf bu sëriñ sëriñ nangu ndax buñ tàmbalee dañuy lépp lu nga xamante ni jëf boo xamante ni nii du lu sëriñ gërëm bëgguñu koo gis ci saal bañ koy defee na murit yëpp waajal ko ba nga ba nga xamante ni buñ tàmbalee dootuñu def leen jëf leen ludul jàng xaside yi jàng alxuraan jox ko Cheikh Ahmadul Bamba Xadim Rasul addiya. salaamaaleykum ñoo ngi siyaar mbokki taalibe yëpp leen baalu àq ci weer wi ñun nag dañ jox ndigal rek ngir ñu jottali ay kàddu jëm ci wàllu organisation bi eh, organisation bi yaatu na lool mi fi ñuy waxee mooy liggéey bi ñu dénk muy jëm ci wàllu dalal gan yi doon xamal ne mbokk taalibe yi war a jugee si dëkk yi ak fu waaye mën a jóge waajal nañ lépp lu jëm ci wàllu transport ak lépp lu jëm ci wàllu daluwaay ba ku ci nekk rek fu waay jógee incha allah dañ leen mën a dem fekk fi ngeen di dal jël si leen indi leen ci saal bi bu dee ci bës bi la bu dee it da ngeen di ñëw laata bës bi waajal nañ it màkk màkkaan maanaam daluwaay yi nga xam ne bu soobee yàlla buñ ko teelee yëg rek danañ leen mën a yóbbu bu fekkee da ngeen a bëgg a ñëw fanaan si maanaam balaa jour bi. bu ko defee dinañ leen mën a yóbbu ngeen dal ci ay ay daluwaay ngir mën a dalu bu baax ngir mën a teewee bés bi. bisimilah barke sëriñ Saliou ni ko sëñ Massamba leerale ci wàllu doxin bi ak teewlu bi ñu xam ne noonu lu ko sëriñ bi bëggee te it noonu lañ ci war a doxee kon ñoo ngi ci sonn suñu bopp di ci sonn ñëpp di wax nag ci turu euh, conservatoire kuréel Touba Aulnay nga xam ne mën nañoo ne moo seq lépp lu njàngum xasida fii ci kër Sëriñ Touba fii ci Aulnay kon ñu ngi ci ñi ngi wax ci tuuru kuréel googu di wax ni bu soobee yàlla daan ci daan ci dox kéem suñu kàttan ni ko sëñ bi bëggee te jubluwaay bi rek mooy làq ci ngër ngërëmal Sëriñ Touba bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ziar mbokki taaliba yëpp di leen baalu àq te di leen baalu àq comme ni ko sëñ Ahmadu waxee rek foofu laay àggalee lu fi mat a wax rek waxees na ko xanaa di ci woowaat ñëpp rek képp koo xam ne danga yëngu ci xasida képp ko xam ne bëgg nga lu baax képp xam ne jullit nga nga waajal bis bi te noonu ñu ko waxee léegi noonu lañ bëgg mu mu tëddee ko ñun ñëpp ñu fànnoo ko ba nga xam ne bu ñu fa dikkee leen am ngërëmal Sëriñ Tuubaa xasida yi nag moom la Sëriñ Tuubaa amee lépp karaamati yi la wax kon bu fekkee dañuy màggal xasida yi képp koo xam ne bëgg nga ngërëmal looy def war nga koo jàpp mën nga koo bàyyi te ñëw agsi ci liggéey boobu kon nag ñu ci mbokki taalibe yëpp ñu gën koo taxawu gën ko waajal bu baax ba mën ci daje ngërëma Sëriñ Tuubaa waq di xawaa ji dina daamoo fi xidmati bi xawlu maaraam barke Sëriñ Tuubaa وسهبه الأبرار